mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat eh, di leen gërëm bu baax fas yéene ànd ak yéen eh, ci 30 minutes eh, chrono ni ñu tàmm di ko defee saa su ne fas yéene waxtaani actualité di leen ziar bu baax ci koor gi nag tey ñu fas yéene waxtaanee ay ponk bokk na ci libération bi ñu annoncé woon ci Sonko ak Diomaye mais aussi tamit bokk na ci. li jëm ci élection yeeg Amadou Ba ak Macky ak waa PDS yi bëgg ñu reprendre le processus dugal ab mbir ca Cour suprême ak campagne beeg déroulement am dinañ ciy wax waaye li njëkkee rek mooy Sonko du Macky mais Macky aussi du Sonko boo jàngatee dëkk bi ni muy doxee da ngay dégg xale yi naan Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko ñu koy wax waaye Macky du Sonko Sonko du Macky mais Macky du Amadou Ba Amadou Ba di Macky ci kanam lu tax ma ibbee nii di ngeen comprendre lu tax loolu am danoo gis ci biir euh, coalition bi di coalition bu Jomaay Ousmane Sonko joxe woon ndigal ne nañ jàppale Jomaay fay mooy candidat am nañ ko dimbali ci parrainage yi mooy candidat ba mu ko waxee tey jii gisuñu ku bokk Pastef di ànd ak Ousmane Sonko ku ne déedéet parce que Diomaye dafa mel nii wala dafa mel ne déedéet déggoo doo dégg ko wax même bu dee am na ñu mu neexul danoo am disipline de parti nangul lu suñu borom dogal parce que nag ñun suñu problème mooy. dan naan duma dem te keneen du dem mais Ousmane Sonko defe ne du ma dem waaye Jomaay dina dem loolu nag miinuñu ko ci politique gu Sénégal loolu tax xale yi naan Jomaay mooy Sonko Sonko mooy Jomaay parce que ci jamono yéen a ngi doon dégg benn Madiambal Diagne dinaa ci dikk ci kanam dégg benn Cheikh Yérim sekk dégg les oiseaux de mauvais augure yu bokk ci nguur gi ak chroniqueur tappale yi ngay gis yenn saa yi ñu nekk ci yenn média di def météo politique. duñ def analyse mais météo la ñuy def météo nag ku ne mën na ko maanaam xëy bu la neex nga ni suba diw mi mooy falu fii diw mi mooy bu la neexee aussi nga tabax ci sa xel ni ña diw ak diw juboowuñu diw ak diw juboowuñu alors que amoo ci benn preuve mais les faits mooy bi ñu tànnee ak tey jii képp ku bokk Pastef yaa ngi jàppale Diomaye naam mi ngi nekk en prison mais ñëpp a ngi jàpp ci réew mi ba ca bitim réew. yamuñu ci waa Pastef mais coalition Diomaye ñi nekkoon ci système beeg ñi nekk société civile ak Masamba ma demba xam na Sénégal nag loolu lu tax ñu koy tàmm di gis mooy sénégalais am na ñoo xam ne yi ñëw par conviction ñuy ñëw par principe mais ñii aussi dañuy ñëw pour ñu yóbbaale leen mais ñii aussi dañuy ñëw jàpp ni nguur gi ñor na xaaral ma ñëw dugg bu ëllëgee ma cëru ji am na ñuy ñëw ci coalition di ci duggee noonu du conviction du principe parce que wolof nee na ba ñu daaw bu ñu bëggee ren seeni i pexe moo jubul looloo te des fois ngay gis coalition de circonstance waaye politique moom lu sa mbooloo gën a sakkan rek gën la arrangé lu sa mbooloo gën la sakkan gën la arrangé te lu tax jomaay mën a profité ci loolu mooy du mu xam ne Ousmane Sonko mun nga wax ni sax bi ñuy def élection législative waxoon na li waa aar Sénégal waxoon na li mais Diomaye peut-être suñu borom da ko dimbali ci ni digganteem ak opposants yi doo ci dégg lu mës wax comme de nature ku calme la yu bari doo ko ci dégg comme Ousmane aussi moo moo nekkoon au devant de la scène kon daawoo dégg Diomaye en tant que euh, kii secretaire général danaan def rek le travail de l'ombre nekk ci suuf di def benn liggéey bi léegi nag ñàkk am diggante ak kenn ci réew mi. man na kenn laa mës a gis mu am ak yow clash politiquement mooy maître El Hadj Diouf mais bu dul loolu doo gis ku jomaay jotewlal kenn kon tey ñii ñëw di dugg ci coalition yi ku ne ak lu la dugal ku ne ak li la indi mais politique da ngay additionner mais doo soustraire kon mbooloo boo am dangay jël léegi nag c'est différent boo eggee au boo eggee au pouvoir du ñi ngay àndal di xeex ñooñu ngay àndal di gouverner. kon loolu il faut que ñu bàyyi ci xel bu baax a baax kon tey jii bu ñëpp jàpp ni coalition bi ànd na nag jomaay rek jomaay dem na après dañuy seddoo réew mi déedéet du demee noonu parce que gis nañ li fi jot a xew en deux mille gis ci li fi jot a xew en deux mille dix-neuf peut-être bu dee am na benn nit boo xam ne réussir na ànd ak ay nit ci coalition ànd ak ñoom gouverner c'est le président de la République Macky Sall mais bu dee Abdoulaye Wade ña ko woon les parti de gauche di ko jëlee woon en 2000 mu ñëw après 2001 presque ñëpp doonoo dem ñëpp doonoo dem ba ci Moustapha Niasse mi nekkoon premier ministre am après 11 mois dafa dem yoonam léegi libéraux yi gouverner ci la créé ay coalition yu mel ay CAP yooyu pour que mu am regroupement bu bari ci ginnaaw parce que au parti au pouvoir day euh, soxla loolu naka noonu Benno aussi gis nañ ko Macky defoon ko kon tey ji mën na wax nii la candidature de Bassirou Diomaye Faye force bi mooy candidature consensuelle la c'est un candidat consensuel maanaam ñi nekk ci ginnaawam yëpp ñoo ci ànd ku ne nag ak noo ci ànd ñii pour seen intérêt ñii pour réew mi ñii bi loolu ay détails la peut-être à l'avenir dinañ xam li xew léegi lu tax ma ni sànq Sonko du Macky parce que fii Macky moo joxañ rek Jom Jomaay ñëpp topp ko mais Macky digganteem ak Amadou Ba. joxañ na Amadou Ba tànn na ko Amadou Ba ne ko ci continuité lay ne parce que nee na la warul am demi mesure waa boo nee loyauté rek da nga war a ànd ak nit ki ba sey mais depuis lors ñu gis ci makki bi ñu bari ànduñu ci candidature bu Amadou Ba ñoom Abdoulaye Daouda Diallo ñoom Mame Mbaye Niang ñoom ñeneen ak ñeneen ñoom ñeneen ak ñeneen maanaam boo dee xool ñi wër Macky sàll yépp am doole jàppaluwun Amadou Ba loolu nag foofu la mag yi uteeg ki di Sonko lan moo indi ñu respecté Sonko pourtant Sonko amul décret présidentiel Sonko amul xaalis bi muy jox nit kon lan la Sonko am lu mag yi amul ba tax Macky mi yor lépp yor réew mën a joxañ fenn gaa yi xoolal leen ma Amadou Ba gaa yi di laam-laami loolu lan lay nuróol bu weesoo ñi bokk Benno Bokk Yaakaar waa APR moom ñi ci ànd ak Amadou bariwul Amadou bañ na ko ba dem sax luga di saraxu Moustapha Diop naan ko élection boo jàppul du ko ko gagné imagine ça te pourtant Amadou Ba dem na fi Louga wër Louga ba mu jeexal demul kër Moustapha Diop ci Mamour Diallo la demoon tey mu wëlbatiku di woo Moustapha loolu lay wane ni Amadou Ba élection yi jekkuwu ko. parce que bi muy def tournéem dafa am ay nit yu mu doon àndal ñenn ñi mu bedd leen mais bu demee ba ña mu beddi woon la bëgg ñu ñëw ñu jàppale ko saa montre que après cinq jours de campagne Amadou Ba gis na ni terrain bi mokkul li gars yi naan terrain bi mokk na mais bi mu terrain bi mokkul léegi nag ñu ne le président sortant parce que nag lii dafa nekk épreuve bu bees nekk expérience bu bees ci politique mooy le président sortant Macky Sall bokkul ci élection yi léegi mu am candidat am loolu mi ngi doog am senegal léegi dana waroon xaar Macky Sall campagnal Amadou Ba wala Amadou Ba demal boppam peut-être Macky munoo jiital ni di ko fakastal mais aussi Amadou Ba am na fu mu def erreur ci politique parce que Amadou Ba dafa amul base bu dëgër parce que bu dee boo demee ba fu toll na parcelle munoo fa gagné loolu yaa problème 2017 bi ñuy wax naan Amadou Ba dafa gagné législative mais 2017 kan moo ko kan moo ko campagnal à Dakar. mais Marème fay moo nekkoon ci wetam ah Ba loolu ñu bari da koy fàtte ba ci deux mille dix neuf ici à dakaar léegi nag ñooñ ñëpp ñu xëy wan ko ginnaaw du ñàkk ni ñooñu ñooñ ñi jàppoon ni Macky dafa war a am troisième mandat dafa war a nekkat candidat parce que bari na ci APR ñoo xam ne Macky ñàkk a nekkam candidat neexu leen te jàpp naa ni Marème fay ci la bokk Mame Mbaye ci la bokk ak ñeneen ak ñeneen. te ci Amadou Ba def nañ ko fi coordinateur u Benno Bokk Yaakaar mais amaru Ba lan la liggéey ci coordination boobu na ci élection yi ñu ko defoon coordinateur mais rien du tout bu ñu demee ba Amadou Ba nekkul la candidat de Benno à Dakar ci élection locale kon Amadou Ba préparé wuñ ko pour que mu ñëw nekk candidat parce que bu doon tey dañ ko nekk candidat la mairie de Dakar peut mun na ko gagné mun na ko ñàkk gagné mais épreuve la boo xam ne dina ko permettre mu bar campagne bi koy dénk coordination Benno Bokk Yaakaar mënoon na permetre amadu pour que sax mu wër ndakaaru wër réew mi parce que bu nee la yaay coordonner une mais yaay battre campagne pour la coalition bu dee local wala législatif parce que foofu le président de la république n'est pas concerné mais yooyu yëpp defu ko mais beneen erreur bi ci Amadou Ba mooy premier ministre yi Macky Sall mos a am yëpp dama jàpp ni mooy premier ministre bi ci gën a géey quoi ñàkk punch lu tax may wax loolu en premier ministre day nekk comme benn genre gant gant boo xam ne moom mooy nekk ci kanamu président bi di ko aar boo xoolee Mimi Touré c'était un bon premier ministre parce que da doon dem au charbon boo xoolee mbiri traque des biens mal acquis Macky ko santaane mais waa PDS bu ñuy sikk ka la ñuy sikk Mimi Touré parce que moo porté woon le combat Mohamed Boun Abdallah Dionne rafetlu ma man liggéeyam ci en tant que premier ministre mais daan na jouer rôle am bi ñu demee politiquement. nekk na fi directeur de campagne jiite na fi ab liste mais yamul ci loolu Mohamed Dionne jël na fi ay risques yoo xam ne sur la plan politique élection yi da koy topp parce que Mohamed Dionne moo fi taxawoon na cinq candidats ñooy am en deux mille dix-neuf mais bi ñu jugee ci loolu Mohamed Dionne moo fi ñëw taxaw à vingt trois taxaw naan gagné na à cinquante sept pour cent pour quelqu'un qui se dit républicain tey ji Mohamed Dionne boobu moo bëgg Sénégal koo xam ne tey yow bi ngay nekk premier nga sañoon loolu. ñëw jaxase ay élection ñëw joxo fi ay résultats joxe fi lu ne kooku nga mën a yor Sénégal mais kooku la fal est-ce du fal ab dictateur kon y'a problème ñooñu nag li ñuy def mi Mimi Touré ak kii Mohamed Dionne nga rafetlu ko ñàkk rafetlu mais Mohamed mais Amadou Ba danoo seetlu ni amul benn taxawaay boo xamoo amoon na ko ci kanamu président Macky Sall pour aar ko pour aar ko mooy Amadou dafa mel ne nit la ko xam ne ci boppam rek lay ne du wax mais ci boppam lay xëy ci boppam lay gont man gis naa fi ay rencontre yoo xam ne à Tamba mais boobu kii le gars là Antoine Diome de presque ci protocole bu yi taxawee Antoine Diome mooy nekk ci ginnaaw Amadou Ba féet ci ginnaaw pour un premier protocole ba président bi nekk ni xanaa yaay war a nekk ci wetam loolu lañ xalaat parce que yaay tofooy président bi mais bu dem ba ay ministre de l'intérieur sax di seen position di gën a jege président bi bu jëlee kàddu ñu jël ko au nom de l'état au nom du gouvernement y problème yooyu yëpp ay paramètres la yoo xam ne mooy quelque qui ne prend pas ses responsabilités quelqu'un qui veut pouvoir sur un plateau d'argent mooy dafa bëgg lu yomb alors que le pouvoir ne se donne pas sur un plateau d'argent ça s'arrache nguur du li ñuy sarax li ñuy may mais nguur da ngay xeex ba jot ci te loolu Abdoulaye Wade war nañu yoon bi Macky sàll mi war nañu yoon bi bi mu taxal ak Abdoulaye Wade dafa xeex ba jot ci nguur Sonko tey jii malgré déboires yu mu am yëpp ci plan juge juge judiciaire mook Jomaay mais jaral na leen dem prison mais mun na am loo xam ne buñ ko nangu woon léeg leen makoon Macky bëggoon a teg mun na am du dem prison mais politique da ngay sóoraale yooyu mais Amadou Ba dafa ragal léegi nag yab googu ñu ko yab egg na ci sax waa PDS jiñ ko corruption mais Macky Sall jëlee député de Benno na leen jàppale waa PDS mais foofu la war Amadou Ba waroon xam ne am ah, Macky gëmu ko li mu wax naa soit de raison la mais du soit du cœur mais dëgg la parce que nit koo def ci sa xol mais lu ko metti metti la mais lu ko neex neex la loolu tax bu ñu gisee campagne Amadou Ba naas tey jii on a l'impression que Diomaye fay mooy candidat du pouvoir maanaam on l'impression parce que da ngay gis ni le parti au pouvoir moo doon am coalition bu ngande x dribble x xl mais bii dañoo gis ni li waroon am ci pouvoir bi mais ci jomaay la ëppee li war jomaay warul sa Amadou Ba jegewu ko ñëpp dem rangé wu kon la personnalité de Amadou Ba mooy kan ba Amadou Ba ñëpp di ko daw même dans l'opposition Amadou Ba ci man gëm naa ni les libéraux waroon na mun a boor ci ginnaaw li ga mais yan erreur la def ci le plan politique ak lan la seq ak nit ñi parce que la relation humaine aussi il faut nit ñi di ko xool mooy digganteem ak nit ñi lan la leen lebal ba gars yi seexlu ko nii la leen legal ba gars yi xeeb ko nii la leen lebal ba gars yi bëgguñu ko loolu rek lan lay présager mais bu ñu demee ba un jour tey ji un président de la république Amadou Ba digg impôt et domaine la nekkoon lan moo yàq digganteem ak Abdoulaye jàll Diallo pourtant mi ngoon impôt et domaine Amadou Ba lan moo yàq digganteem ak Mame Boye Diao pourtant impôt domaine lan ne alors que ñooñu ñooñu ko gën a xam ñi ko gën a xam ñoo ko gën a bañ Amadou Ba ñi ngay gis ñi koy jàppale sax mooy ñi ko xamul mooy les mouvements de soutien ceci ou cela mais ñi xam jikkoom dëgg-dëgg bëggunu ko loolu kooku est-ce que mën a nekk un bon président pour le Sénégal loolu nag mooy def différence su Sonko ak Macky Sall mooy Sonko bokkul Macky bokkul mais fexe nan Sonko fexe na ba def ba benn choix bu unanime choix bu consensuel mais Macky Sall côté boobu da ci am problème mooy côté tànn te loolu nag bu amee bu mu mere kenn na mere boppam Macky Sall moo dem ba nekk ci benn niveau ci politique boo xam ne sénégalais yi dañoo doyal sëkk ci moom. dem ba sénégalais gisatuñu lu baaxam sénégalais gisatuñu lu rafetam te lin naan gan gu naqadi gunge bu gunge bu sori du ko defar moo ñu dal ak Macky dem ba réew mi yëpp yàkkamti Macky Sall ci réew mi ku mën a falu baax na loolu des fois sànq maa ngi wax défaut yi Amadou Ba am mais le problème mooy est-ce que du Macky Sall mu am problème maanaam képp ku jege Macky pour man même bu tànnuloon Amadou Ba tànn keneen ki mu tànn sax nit ñi du ko jàppale. parce que à travers sa personne dangay gis le président de la république président bu xam ne depuis douze ans tëj jàpp nguuram ñi ci dee bari defante dem bay tëj Casamance démb maa ngi dégg conseil des ministres mu ne non li jëm ci bato bi léegi dafa war a commencé at daw à une semaine des élections lan moo waroon nga lii pour des raisons politiques pour bloquer Sonko pour barricader Ziguinchor pour lan tey jii loolu tey jii moo jural Macky Sall coono bi mu am mooy même bu dul Amadou Ba Macky Sall ku mu tànnoon Sénégalais yi dun ànd ak yow même bu tànnoon Sonko wala mu tànn Diomaye sax Sénégalais yi dañuy bañ parce que le problème c'est maki il faut avoir le courage de le diir parce que Macky nag ci nguuram moo fi def lu kenn deful bi ci mujj rek mooy reporter élection yi teg ko fu kenn deful mais ñu dem ba à une semaine des élections sax yenn ci Sénégalais yi seen xel di tey ci ni élection dina am am déet. yaa problème yaa problème léegi le Sénégal dem ba nekk la risée du monde te loolu benn nit mënu ko teg mu le président Macky Sall ak tappale ak yëfi gone ak yëfi caaxaan yi Karim Wade ak waa PDS di def ànd ak ay magi démb ay Decroix yoo xam ne j'espère que mooy loolu quoi est-ce que naaxuñu tu te poses des questions quoi lan mooy problème Decroix bu dul falu ak folleeku lan la mës a jariñ Sénégal rien du tout Decroix ban élection la mën a dem gagné ko leen naan nan tëggaat le processus même bu ñu ko tëggaatoon mi moom di gaajo di ñi nekk di les candidats spoliés wala poliés jeune on ne sait plus mais ñooñu ñëpp ku ci demoon bu ñu tëggaatoon élection duñ am parrainage parce qu'ils sont impopulaires te sénégalais bañoon na leen ba ñàkk leen a pare ne mais tey ji la leen gën a bañ parce que liñ metti yëpp danoo jàpp ni PDS ak ñi mu àndal ñooñu ko teg même bu Karim Wade amoon sens su bokk ci élection sax du ko amati parce que jëppi na leen ba pare xeeb na leen loolu tey jii moo indi situation bi ñu nekk ci sur le plan politique léegi nag loolu lépp bu amee léegi xam fa lañ war a yóbbu ci sunu njàngat mooy lan lañ ci jublu waaw parce que conseil constitutionnel bi mu jàppee le 31 nit ci lay def élection yi 31 mars. Macky Sall jàpp le 24 pourquoi mu jàpp le 24 te campagne war a nekk 21 jours mais le conseil con dafa bëggoon mu am crise constitutionnelle entre moom ak conseil constitutionnel crise des institutions mais conseil bi bañal ko ñëw fekk so léegi bi ko conseil bi fekk see moom la président de la république Macky léegi li ñu doon xaar ci moom mooy mu teg ngànnaay yépp woo gars yi ñu dem campagne ñu fas yéene dem ci élection même bu dee 15 jours wala 12 jours la ñuy dem campagne mais loolu faute bi du kenn Macky Sall la parce que bu jàppoon élection yi le 25 février weesu nañ fii te moom xam na ni la 2 avril mënut a weesu di doon président Sénégal léegi lan la jublu ci jàppoon date du ñu yóbbu ay le 2 ak du subaare ay ngénte ak ay ceet ay gàmmook yooyu yu ko kenn laajul y a problème léegi gars yi bëgg ci sukkandiku ni dono violé. code électoral bi campagne bi temps la ak temps mais makisal Sall acte de gouvernement la jël maanaam li xew yépp ay photom la kon tey ji buñ koy réparer ci kan sukkandiku moom ay photom moo indi situation bi maanaam problème bi bu doon keneen moo ko causé mais c'est Macky Sall kon Macky Sall mënu maanaam Macky Sall lan na jàppal date dans les meilleurs délais mu nekk fii jàppul date bàyyiwu ko conseil bi jàpp date mu jàpp date ñu jël date boobu te kon loolu date boobu kenn mënatu ko dindi parce que situation exceptionnelle mesure exceptionnelle faute bi Macky Sall la kon moom mi def faute bi moo ko war a réparer wala ñu réparel ko ko beneen bi ci topp bi waa PDS di wax naan ay 21 jours campagne bi ak ñoom seen ñoom ñoom bokkuñu ci campagne bi ñoom duñ candidat loolu tax euh, ci wàllu yoon ñu leen intérêt à agir yéen mbir mi seen yoon nekku ci ca Cour suprême léegi nag jurisprudence bu Ndiaga Sylla mooy Ndiaga Sylla bi waa Sénat defaree Sénat mu jàpp ne Sénat bi nañ ko tëralee du noonu qu'est-ce qu'il a dafa dem def recours conseil constitutionnel Ndiaga Sylla ca fële ca cour suprême lan lañ wax Ndiaga Sylla yow soo yoon nekkul ci élection yi doo candidat waroo def recours lan waxoon Ndiaga Sylla lan war a wax waa PDS bokkuñu ci élection yi seen yoon nekku ci nan dem dugg ci coalition jàppale ki ñu war a jàppale bu nu amul ku ñu jàppale ko defee 2019 comme ñoom seetaan ak tàccu moo leen dese ak mer jooy nan yam ci loolu di nga du nangu ñu matul mbuus ba pare bëgg a yàq mbuus mi PDS ay deux croix yëpp liñ laan ma mag màgget màggetuma kii du yàq mbopp mais dañu yàq mbopp te ti génne ay audio di jiñ conseil constitutionnel ñoom waa PDS tey jii Mamadou Lamine Thiam li mu def danga ko waroon woo ci yoon créer benn group benn seen YouTube boo xam ne benn na nga fay dugal naan ay audio kari audio wu conseil constitutionnel Amadou Ba moo leen yónnee temps ak temps Amadou boobu ngeen di jiñ corruption ab sàcc Macky Sall démb leen moom laa wóolu sàcc boobu ak gerkat boobu Macky Sall nee na moom la wóolu kon yéen la rek kon nañ jàll ci élection yi te nag. PDS lu tax jiñ gi ñuy jiñ mbiri corruption ak audio yi ñu war leen leen lijjanti xamul tax en 2012 dafa am Malick Nawal sekk tam nekkoon jeunesse socialiste doon ànd ak Barthélemy Diaz dafa tëkku woon waa conseil constitutionnel dem jël ab jaag jaag bu ma jum wala keesu néew dem teg ko ci buntu conseil constitutionnel pour attu woon ñoom ndem si yàlla Cheikh Tidiane Diakhaté bi Malick Nawal Seck defee loolu. da kaa jàpp tëj ko 6 bu ma juumul 2012 Malick Nawel fekk fekkewul élection yi bu ma juumul ah peut-être day xaw a yàgg dañ ko jàpp parce que dafa ñàkk teggul conseil constitutionnel Bassirou Diomaye Faye colossardisation la wax ci magistrature bi ba tey mi ngi ci kaso bi waa PDS lu doy na ger yamatuñ ci génnee ay audio yamatuñ ci jiñ Cheikh Ndiaye ak Cheikh Tidiane Gassal léegi dañ cee boole conseil constitutionnel yépp rawatina Modou Badio Camara kon le procureur bu dee def liggéeyam bu dee ni juge dafa war a def liggéeyam danoo war a woo waa PDS woo Mamadou Lamine Thiam mu leeral loolu léegi nag coow li yépp am na mais ñi bokk ci opposition bi xam lu war a def mooy damay bañ Macky Sall piégé leen ñu daanu ci dafa am euh, li ñuy wax référendum 2016 référendum bi ginnaaw bi ñu defee dialogue waxtaan avec la classe politique sénégalaise Macky Sall danoo déggoo woon une date danoo jàppoon date ñu ne le 20 mai 2016 lañ war a def référendum bi date boobu lañ jàpp de xam na la Macky Sall def daf leen a bett parce que Macky Sall day jouer ci temps temps daf leen a bett comment il a dafa jàpp dafa bàyyi ba weeru mars di waaj a jeex rek Macky Sall maanaam ci weeru février bi ne nan dem référendum le le 20 mars boo xoolee référendum 2016 le 20 mars la am au lieu de 20 mai boobu fekk na moom jàpp na 20 mars am de mais dafa bañoon opposition bañ a pare pare te lii nii def na ko ci liste électorale yi 3 mois la xale yi waroon a bindu ji. Macky Sall yéex-yéexlu ba def ko un mois lii di parrainage bi trois mois la waroon doon bu ma juumul Macky sàll fexe ba def ko un mois jeune ne sais un mois ou deux mois je ne mais fexe na ba wàññi délai bi nu waroon a def parrainage Macky Sall ñu war a dem élection Macky Sall fexe ba 21 jours wu waroon campagne mu fexe ba def ko deux semaines. matutat deux semaines parce ces douze jours maanaam wàññi boobu koy wàññi xam lu mu ci jublu mooy opposition bañ a pare bañ a def la maillage du territoire maillage du teritoire mooy coalition Jomaay wala Aliou Mamadou Dia wala Anta wala keneen ak keneen duñu am moyen pour mën a wër réew mi yépp parce que opposition fi réew mi toll opposition bi surtout les zones rurales yoo xam ne nguur gi def na fa ay réalisation foofu ay bourse sécurité mi ngi fay dem nit ñi ni ñu waroon comprendre rek comprendre ko ci dëkk kaw yi day fexe ba opposition bi du fa def campagne moom Macky te loolu la jublu ci délai pour man délai gàtt yi nii loolu la ci jublu fexe ba opposition bi duñ dem élection parce que day am benn avance bi muy am ci opposition bi avance bi xam mooy lan mooy amalu Ba dem na fi tournée Macky Sall amul benn jamono. bu dul at mu ne mu def conseil des ministres décentralisé wala mu def tournée économique kon Macky Sall durant les douze ans amul at mu mënul génn ci dëkk kaw yi wax ak ñoom jamono boobu ci la dakkal nemeeku tour jàpp Sonko jàpp kii di Fadilou Keita seetloo nemeeku tour Macky Sall buggul woon mu am parce que Sonko bu waree réew mi waraat ko comme nu mu def ci législatif ak local deux mille yu weesu ci local yi weesu Sonko kenn du ko attan opposition kenn du leen attan rawatina coalition bi ñu àndaloon di askan wi. loolu nag da doon def de telle sorte que gars yi duñ wër dëkk bi te loolu indi na ci li tax mu tëj Ousmane Sonko tëj Bassirou Diomaye fay tëjoon Fadilou Keita maanaam le directoire de Pastef yëpp mu tëj leen léegi nag quinze maanaam délai yi mu wàññ bu opposition bi muusul billaahi bu leen di gagné wala ñu leen di sàcc élection foofu lay jaar mooy ñoom le parti au pouvoir xam na ni maîtriser wul les zones urbaines Touba mun nga ko parce que Touba ville la ma commune la nga ko tuddee mais ñun ville la nga koy jàppee parce que Touba comme Dakar boo demee Ndar la même chose nga dem Thiès nga dem Mbour nga dem maanaam ci communes yi les villes foofu opposition moo ëpp doole mais dans les zones ma Macky day def de telle sorte que opposition bi du fa egg léegi nag opposition bi xamoon nan lay régler loolu loolu tax ñàkk génn jomaay sax am na fu mu baax ci gars yi mooy yeneen parti gi amuñu moyen amuñu doole amuñu xaalis peut-être amuñu ay militants fépp ba mën fa jaar dama lay jox benn exemple même pure en deux mille dix-neuf bi ñu eggee Tamba lañ yàq seen campagne parce que boobu pur mi ngi wër réew mi mais deux mille dix-neuf Macky maanaam Sonko deful maillage territoire bi maanaam am na fu Sonko demul parce que amul woon moyens yi Idrissa Seck bari na ay zones yu mu demul woon en deux mille dix-neuf parce que amul moyens yi en vingt et jours. léegi en ke léegi loo mënoo def en vingt et un jours mënoo ko def ci dou jours loolu nag état bi foofu la sukkandiku man pour gagner élection yi fexe ba joueurs yi gën a sori ci Sénégal opposition bi du fa am dara même bu ñuy sàcc élection sax duñ xam nan lañ koy sàccee loolu il faut que ñu bàyyi xel mooy Kédougou Tamba li jëm ci côté euh, nord bi Podor maatam Ndar Dagana li jëm ci Rue Sassool côté yooyu opposition bi ñu waxante dëgg dafa des léegi nag li des ci semaine campagne bi pour man xamal la la war a def ñoom mënuñu dem fépp mais les acteurs à la base comme ni ñoom Cheikh Bara Ndiaye def ak ñeneen ak ñeneen mooy bu ñu xaar Jomaay bu nu xaar la grande coalition parce que en deux mille dix-neuf li rey coalition Idrissa Seck mooy punkal yépp dañ doon yëg ci oto bi comme ni waa coalition Jomaay di def àndandoo doon benn mais Mbaba Girassi mais na dem Kédougou campagne yi jarul biy dugg ci oto yi yi nii nii la Diomaye bëgg mu defal ko ko ñu fexe ba kenn ku ne ca gox ba nga dëkk nga am loo fa def ku mel ne Guy Marius dem Casamance dem Tamba keneen ak keneen maanaam ñu tasaare seen i force au lieu ñuy daje ci benn autorité di def mais comme amuñu temps na ku ne dem fa mu dëkk dem boobu ñu fay dem nag moo leen di may ñu mën a engager ay voix yu bari même bu pouvoir bi di gañe mais ñu am lu ñu wàññi ci doole pouvoir bi parce que déjà ak yi mooy les grandes ville opposition bi mooy ki ko moom te lu tax muy compliqué ci opposition bi mooy candidats yi danoo bari te bu mësaan di dem yeewi la ñuy demee tey jii yeewi ñaati candidat ñoo fa am pur Déthié keneen ak keneen ak keneen loolu day effriter seen i voix kon li des ci campagne dafa laaj ay stratégie bureau de vote yi ñi war a jëli seen carte jëli ko ñu am ay représentant partout mais dajale ci benn oto di wër rek amul sens teg ci ñu maytu sabotage ak provocation parce que état bi ma gis am na ci ñoo xam ne bëgguñu dem élection loolu tax bu leen tapaasee comme li xew ci Pikine bu ñu xeex bu ñu xuloo bu ñu taal këru jàmbur bu reyante kenn nanu fexe ba teg lépp ci jàmm ak salaam parce que sa ndam doo ko téye ba pare di xeex doo yor say pañawu nen ba pare di xeex sinon day toj te fi mbir toll opposition moo gën a jekku kon provocation ak lépp lu leen mën a teg nan koo dékku te xam ne kuy rëbët jaan du faale jiit mooy l'essentiel mooy d'aller aux élections gagné ko changer système bi jàll ci leneen kon mbokk yi di gërëm Ablaye moo nekkoon tey ci régie bi Abdou Top euh, moo ko doon jàppale di gërëm ñëpp di leen sant Fallou ak Modou ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax kon euh, beneen euh, alxamis ak beneen 30 minutes crono jërë ngeen jëf